Salut les amis de eSport TV. Merci encore gars de la confiance en renouvelée. Merci de vous des likes, merci de vous des abonnés gars. Merci également de baisser les commentaires. Hein. Un plaisir renouvelé chaque fois de partager les informations. Mbok Sénégalais fait pour le Monténégro, 14 régions du Sénégal. Rokh Rokhat Gokh Gokhari. Ñi ngi leen di jaajëfal di nekk également ci lal hôpital yi ci kër yi tëdd feebar yàlla na suñu borom fëgg seen bopp ngeen rek jàmm. Ñi nekk ci kaso yi ngeen xam aussi erreur judiciaire gi ñeen lañu deful moo ne fa yóbbu suñu borom génne leen fa delluwaat leen seen i njaboot ñu déddu àdduna suñu borom xare leen daajane fi daw si gars yi te yéexee on avance ensemble dans la magie de eSport TV l'actualité en continu gars actualité bi nañu fas waxtane ki di Neymar mi nga xam nak waxna ci joueur africain mom nak waxna lutax na lu tax mu coupe du monde équipe africaine yi jëluñu ko ba légui def ci ab njàngat njàngat bo xam aussi ku nek aussi mën nga ci am ben gis-gis mais laata boobu nak ki di Sergio Rico bonne nouvelle actuellement daal liñ gum ci information nee nañ génn na ci comment bi mu duggoon moom mi nga xam dafa euh, amoon l' accident dafa daan woon ci face boobu ba léegi nag ñu dugaloon ko ci coma soxnaam nag génn nee na nag muy jugee na ci comment bi mi ngi def ay geste daal loolu la ñu waxagum kii nag di Benjamin pavar Benjamin pavar moom ba léegi mi ngi insister donc di bëgg a jugee du côté du Bayern Munich waa Bayern nag jamono ji dañoo bëgg a boucler donc benn défenseur notamment Kyle Walker la ñuy xalaat ki ngi jay également mi ngi jege si bu baax a baax a baax moom daal fii ak juillet la mbir yi nar a leer kii nag di Füllkrug Füllkrug l' attaquant donc de la national Mannschaft hein, actuellement Bayern boole a ci listam pour attaquer yi recruter parce que sommes numéro 9 d'Allemagne, c'est une priorité saison prochaine ñi wax Vlahovic mais aussi Füllkrug n'est na championnat d'Allemagne. donc y a aussi xam nañ ko ki nga Obama Young, Obama Young di euh, donc Aubameyang Aubameyang aussi waa Arabie Saoudite tijji nañ dossier tijji nañ. dossier am donc Arabie Saoudite gars yi maa la ko promet benn vidéo ñu def jàngat bi par rapport ak loolu lu tax aujourd'hui Arabie Saoudite di miser ay milliards ci joueurs loolu nañ ci wax ki nga xam ne nag mooy donc kii di euh, Pep Guardiola Pep Guardiola nee na nag waaw Xavi moom mi ngi woo lu bëri bëri bëri sax ki nga xam ne mooy Gundogan mi ngi wax ak moom mun na Gundogan euh, ñun bëgg nañ mu toog fii waaye tamit bu degee demee dem na ca Barça dina euh, de football mom pour l'instant dafa am contrat avec Chelsea mais football lu nekk ci aussi championnat italien championnat bu am niveau lo, loolu daal la dadi di qui euh, ki nga donc Mikaïl Ngor ah, la pépite donc formé à Djambar aujourd'hui nak signé na contrat euh, de 2027 du côté du FC Barcelone option d'achat nak nekk euh, donc li di 400 millions mom nak pour prouver ou imposer ou du côté donc du FC Barcelone Neymar nee nak mom lu Afrique du jël coupe du monde wala jëlul ba léegi coupe du monde moy que ne joueurs africains yi wuñu pour Afrique mais dañuy joué pour Europe l'homme moy gis-gisam mom nee aujourd'hui ñom Brésil bu féké li tax ñu gëna jël li nga xamné nak mom moy donc li di euh, coupe du monde bi euh, cinq fois moy que ne ñom même bu féké ne ñu bëri ci ñom la majeure partie ah la majeure partie même bu fekkee ne sax ci Europe lañ la formé wala benen dëkk lañ la mëna formé wala benen continent a yow sa fierté sol Brésil mayowu Brésil ci terrain bi lolo tax tay ñu def ko bu Il y a beaucoup combien de jours, africains yo ont tay ji qui ont ñi ngi ñew am possibilité jouer pour sen jouer pour ils ont préféré jouer pour l'Europe dem et la plupart du temps ñi si bëri ñi notamment quand je prends l'exemple du Sénégal ñu bari ñi tànn équipe nationale euh, yeneen dëkk yi buñ démé duñ duñu joué ban la ñuy dañuy damm ba ni ko gars di waxé wala bok dañ leen di sélectionner ben yoon ñaar yoon doto leen gis loolu aujourd'hui moy c'est ce qui se passe motax aujourd'hui limu wax tamit man sama gis-gis que il a raison parce que aujourd'hui l'Afrique doit pouvoir compter sur ses fils mais tamit Afrique mo wara a di top yenn joueurs yi joueur pour man si gisee ne am na talent defar approche bi loolu moy logique bi ñun nañu def approche bu féké intéressé nañu mais après nous, top ci si joueurs. Il y a des gens qui me demandent ki nga xamné moy donc Sofiane Diop pour man Sofiane Diop day jouer ak sénégalais li Boubacar camara def lay def mi ngi au Sénégal ça veut rien dire ça veut dire que ne tey boo jouer Sénégal da ngay ñëw ne da ngay jouer Sénégal waaye ma ngi ñëw ni je n'ai pas encore pris ma décision di ni loolu yaa ngi xaarandi fi équipe wo la bu le équipe bobu après nga soog ñëw jël Sénégal def ko roue de secours aujourd'hui on a vu l'exemple de Iliman qui a la nationalité française qui pouvait également prétendre jouer à la avec la France et niveau bi mu yor nii en jouer France am possibilité de jouer mais il a choisi de venir jouer pour le Sénégal parce que mom dès le début dafa né Sénégal la bëgg Moussa Niakhaté wo nañ ko fi Deschamps woo ko mu né joué mom clairement beaucoup de gens wooyu dafa ne moi je préfère jouer pour le Sénégal exemple yooyu la ñu aussi du côté de l'Afrique beaucoup bu ko ñëpp doon def Afrique tay dina egg beneen niveau gars yi nag loolu la ñu ak jangor bu daw doon ko def ci par rapport ak li Neymar wax yéen man xalat ngeen ci am toujours un plaisir de vous servir wooy leen di like mais surtout wooy leen di abonner on avance ensemble dans la magie de eSport TV su baaxee si yéen la su bonné si la jaa